الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم mbokki groupe aqidatu manhaj salaf gannaaw bañ sante yàlla di dellu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal àq te di leen baalu àqiit bu baax di jéggalu tamit ci guddee gi di wax ne dañu ñëw di fàttalanteeg yéen tey li nga xamante ne bii moom mooy topp gi ñu war a topp yonent bi sallallahu alayhi sallam roy gi ñu way war a roy yonent bi sallallahu alayhi sallam déggal gi war a déggal yonent bi sallallahu alayhi sallam gis ne bari na tey ay doomu aadama yu bari ñi ngi jéem a dettel li nga xam ne mooy sunna ñi ngi koy xeex ñi ngi koy màbb bal ëpp ci sunna tey màbb nañ ko taaralee ko li nga xam ne moom mooy bidaatu xam ku nekk xam nga ne bidaa dafay rey sunna moo tax yonent bi sallallahu wax naan iyaakum wal muhdasaati umuur wa inna kulla muhdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar mu ne maa ngi leen di moytandikuloo ngeen moytandiku maa ngi leen di bépp mbir bu ñu sos sama ginnaaw mbir mu ñu sos ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi nag mbokk yi mooy mbir moo xam ne dañ koo sos daa di koy solal mbubbum diine taaralalee ko diine ba nga xamante ne bi dañuy def ne lii lu yonent bi jëfoon la wala lu mu defoon la wala lu mu digle la te fekk sori na lool ak njàngaleem sori na lool ak la mu jëfoon diglewu ko jëfu ko sant ko it kenn waaye tey ay yoon ay nit ñoo ñëw fent loolu ci ginnaaw yonent bi salallahu alih w sallam daa di koy tuddee turu diine gannaaw bañ ko tuddee turu diine nag ñu bëri ci doomu aadama yi tey daw jëm ca loola defe ne ay yiw lañ ciy am te fekk duñ ci am yiw ndax ku nekk xam nga ne bépp nit boo xam nga ne jëf nga jëf ci wuuteeg jëf ci yonent bi sallallahu alayhi jëfoon dañ la koy delloo comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun képp koo xamante ne bi da nga def lépp loo xamante ne bi defuñu ko woon jëf jooju dañ la koy delloo nga gis ne topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ñu bari am na nuñ ko tegee ci ay xalaat ki xel te ku nekk xam nga ne diine du xel du xalaat waaye ay texte la ndax yonent bi sallallahu wa sallam moom la yàlla joxoñ ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moomu de indil naa leen ab royuwaay bu rafet royuwaay boobu mooy kan ah, mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy roy bu gën a rafet te borom bi nee na it yonent bi sallallahu mooy roy bu gën a rafet kon li tax yonent bi sallallahu alayhi mooy roy bu rafet borom subhanahu wa taala moom moo ñu ko xamal ci ñu war ko topp mu nekk roy waay li tax yonent bi sallallahu alayhi nekk ku ñu war a topp mooy borom subhanahu wa taala moom moo ñu digalit ñu topp ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla mu ne wa ma aataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhum fantahu mu ne lépp lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa indil jël leen waaye lépp lim leen tere it ngeen bàyyi ko. nga gis ne topp yonent bi sallallahu alayhi wa mooy lépp lum ñu indil moom yonent bi comme ni ko borom bi waxee nañ ko topp nañ ko jël waaye lépp lum ñu tere nañ ko bàyyi. ndax topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñu tàntal ko tàntal ko ay góor ak jigéen jaxasoo ca ñuy fottasu te ne dañuy euh, màggal yonent bi wala dañoo soppi sopp yonent bi déedéet ñoom soppuñu yonent bi waaye dañoo soppi di yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ku nekk xam nga ne yonent bi sallallahu de kenn mësu koo fekk muy woote ay géew ak i tànt mësu koo fekk mu muy euh, ànd ki saxaabaam ay góor ak jigéen ñu dajaloo di jaayoo ko way ngir ne dañ ko bëgg kenn mësu koo fekkee bal bu fent bi sallallahu alayhi wa sallam jugee bi nga xamante ne bii moom mooy euh, xalifa yent bi sallallahu alayhi bi njëkk ci ay xalifam musta woote ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi benn géew wala tànt ngir ne nañ ko njukkalee yonent bi wala nañ ko ko màggalee naka noonu tamit Omar ibnul Xataab radiallahu wa arda musta euh, tàntal yonent bi sallallahu sallam ne dafay jóge kon nañ ko géewal nañ ko tàntal ngir ay jëf yim fi defoon walla ay jikkoom kon kenn ci saxaaba yi gannaaw bu fi yonent bi sallallahu deful woon loolu gannaaw ba fi jógee ñi nga xam ne ba na leen fi muy ay saxaabaam kenn ci ñoom musta géew wala muy tànt ay góor jigéen ànd ca dañuy tàntal yonent bi sallallahu alayhi dañ koy màggal wala dañ ko ci tuddee ay xew-xew ba nga xamante ne bi dina tax ay góor ak jigéen jaxasoo jaxasoo gu rëy am ci ba mu nekk loo xamante ne bi nekkul lu yàlla gërëm nekkul it lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle woon nekkul it bokkul woon tamit ci njàngaleem te nga gis nga nag ñu bari ci doomu aadama yi euh, réer nañ li nga xam ne moom mooy njàngaleem yonent bi te ku nekk xam nga ne boo delloo ci li yàlla wax ne wa ma aataakum rasul fa xuzuhu wa ma nahaakum anhum fantahu loolu yonent bi jàngalewu ko woon kon nañ delluwaat xool beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la aw lay wàcc ci kawam ci ñu topp ko ci lépp nag ndax lan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha li tax lay wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu topp ko mooy borom subhanahu wa taala nee na yonent bi du waxee bànneexu bakkanam lépp lu mu wax moom borom bi mooy ki ko wax yu waxu ko mukk teg ko ci bànneexu bakkan mais lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax wala mu jëf ko ndigal la lu tukkee ko ca boromam subhanahu wa taala mu jëf ko wala mu sant ko mu wax ko moo tax mu ne yonent bi du waxee bànneexu bakkanam lépp lu mu wax man borom bi man maa wax te ñaar ci aw nit ñooy sosal yonent sallallahu alayhi wasallam ci ay wax ak jëf fekk leen ñuy jëf nga ne leen jëf gii ngeen jëf la la ñu ne yonent bi jëfoon na ko te yonent bi salaay salaam sori na ak loolu wala nga fekk leen ñu wax ab wax nga laaj leen ñu ne la wax jii de yonent bi waxoon na ko te fekk yonent bi sori na ak loolu nga xam ne dañoo jukk di sosal yonent bi salaay salaam di teg ci moom ay wax yoo xam ne wala ay jëf yoo xam ne sori woon na ko lool moo tax yonent bi salaay salaam di wax ne man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu min an naar mu ne képp koo xamante ne bi fenal nga ma de wala nga sosal ma jëlal sa chaise nga placé ko biir safara yàlla nañ ci borom bi subhanahu wa taala musal nga gis ne yàlla bàyyiwul benn yoon ci li ñuy wax ne nañu topp yonent bi sallallahu alayhi mu ne wa man yuti wa man yuti rasul faqad ata allah wa man yuti wa man faqad ata allah képp koo xamante ne bii topp nga yonent bi salaay sallam man yàlla nga topp képp koo xamante ne bii topp nga yonent bi salaay sallam man yàlla nga topp kon day ñi dellu ca firndeel li firndeel lool rek mooy wamaa yante ko añul xawaaje yàlla waxoon ne ku ko ke e, waxeewul bànneexu bakk na moom yonent bi lépp lu wax man yàlla maa ko waxloo borom bi dafa ñëw gën koo dëggal ci wax ji ne wa man yuti rasul faqad ata allah képp ku topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam man yàlla nga topp طيب ينتبه صلى الله عليه وسلم دل وحانة في حديث بها أبي هريرة من موقع نتلي رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا من أتاني فقد أطاع الله كيف كما توب توب يالا وينك ومن عساني فقد عسى الله كيف كما مويت mooy nga borom bi subhanahu wa taala yont bi neen képp ku ko topp topp nga borom bi subhanahu wa taala képp ku ko moy may mooy nga li nga xam ne moom mooy borom bi subhanahu wa taala kon ndax topp gi ñu war a topp yonent bi dafa war a am ci ñuñ ko jële naam bu fekkee ci ñañ koy jële de la yonent bi daan jëf ak lam daan wax loolu lañuy jëf ñoom ak ñoom loolu la ñuy wax mën nañoo ànd ñoom kat am na ñoom wommatu topp yonent bi sallallahu alayhi waaye bu fekkee ñoom la yonent bi doon wax wuute naag tey seeni wax la yonent daan jëf wuute naag tey seeni jëf ñoom dañ leen fa naan ñukk wommatu daal di topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu aw lay wàcc na ci kawam waaye ñee nag ma anzalallahu biha min sultaan aw lay wàcci ci ñoom waaye lépp lu ñu wax seen bànneexu bakkan lañ ko teg lépp lu ñu jëf ci seeni bànneexi bakkan lañ ko teg lépp lu ñu wax bëgg ak moomeel ak lu yomb ca lañ ko teg waaye teguñu ko mukk ci njàngalem yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax topp gi nga xamante ne bi war nañ ko topp yonent bi sallallahu alayhi dañ ko war a dañoo war a dellu jiwaat ci njàngalem yàlla mi nga xam ne moom moo ñu digal ñu topp yonent bi gëstu ci nan la digalee ñu topp yonent bi muy roy ci ay tànkam moom yonent bi sallallahu alayhi ci lépp loo xamante ne bi jëfoon na ko ñu jëm ko jëf suñu kem kàttan lépp lu doon def ñu def ko suñu kem kàttan ndax ku nekk xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam de dundam yëpp mbaax la fi nekke woon dundam yëpp yiw la dundam yëpp njekk la dundam yëpp jaamu yàlla la dundam yëpp la dundam yëpp dimbali jirim la dund yonent bi sallallahu alayhi yëpp Qur'an la dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp xeex ci yoonu yàlla la dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam xeex ci bokkaale ak bidaa dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp xeex lépp luy mbonte ak ñaawteef ci kaw suuf dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp mooy wommatu ci teg nit ñi ci mbaax ci jubbanti ay nit ay góor ak ci jigéen ci xeex ci ay xare yoo xamante ne bii ay xare yu wuutale yu fasantikoo te xare bu ci nekk bi mu koy xeex mi ngi ko doon xeex ngir jëmmi borom bi subhaanahu ngir islaam taxaw ngir nit ñi nekk ci dal ngir nit ñi jaamu yàlla yi kese bañ ko bokkaale ak dara ngir doomu aadama mu nekk xam luy àqam mu jël ko ngir jigéen ju nekk xam la mu moom mu jël ko ngir ndaw ñi am jàmmit lii moo nekkoon taxawaay yonent bi sallallahu alayhi ci kaw suuf fësal mbaax fësal li nga xamante ne bii moom mooy e, teral li nga xamante ne bii mooy nit ak nga gis ne ay jikkoom bokkoon na ca moom yonent bi sallallahu alayhi di joxe di maye yaatu bokkoon na ci jikko yont bi sallallahu alayhi wa nga gis ne doomu aadama bi tey war na roy yonent bi sallallahu alayhi wa ci baree ci lu bare baree bari ci loo xamante ne bi tey ci yonent bi sallallahu alayhi wa rek la ko war a jëlee bu fekkee nag da koy jël ca keneen waaye na jàng kooku ndax lii muy def yonent bi daana ko defam déet bu fekkee dafa wuuteeg njàngalam yonent bi mu ne ko fa ñukku daal di wommatu topp ki nga xamante ne bii moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ne tey doomu aadama yu bari tey ñi ngi sànq aw nit ci ne ah mbir yu bari tuddee ko jël mbubum sunna solal ko ko ak mbubum diine te fekk soli loolu lool moo tax à chaque fois jëf yooyu dañ koy laaj am lahum suraka yastaraw lahum min adin malam yasam bihillah bandigal lañ am ci tukke ko ci borom ba jël ay mbir tuddee ko sunna jël ay mbir tuddee ko diine jël ay mbir taalalee ko turu diine solol ko mbubum diine ba ay nitay di ci jaamoo yàlla ci jaamu yàlla goo xamante ne bii dëppoowul ak la yonente bi defoon jaamu yàlla yoo xamante ne bii dëppoowul ak njàngala yonente bi salalah ai sallam di jaamoo yàlla noo xamante ne bii amul aw lay wenn wu ci wàcc ci lu dul ne dañ koo fent ci ginnaaw yonent bi sos ko daal di koy tuddee li nga xamante ne bi mooy turu diine taaralee ko diine ba ñëpp defe ne li yonent bi da koo gërëm wala ba ñëpp defe ne lii yàlla da koo gërëm fekk sori na lool njàngalem yàlla sori na lool njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam na lool njàngalem saxaaba yi nga xamante ne bii gannaaw yonent bi sallallahu ñoom ñoo fi nekkoon nga gis ne kon tey ñu bari sànq nañ aw nit ci jël mbubbum diine solal ko seeni yoon jël mbubbu sunna solal ko seeni yoon ba ñu baree bari réer ci ba ñu baree bari sànku ci xàmmewuñ tey lan mooy sunna xàmmewuñ lañ mooy biddaa xàmmewuñ lu ñu sos xàmmewuñ lu yonante bu def ak lu mu deful dañoo jël lépp rekk daal koy sóob ci benn mbir ba ñëpp defe ne lii mooy yoon wax te fekk loolu nekkul yoon wa kon yonent bi sallallahu topp ko nekkul ci dajaloo topp yonent bi sallallahu nekkul ci fent ay kuréel topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul ci góor ñee jigéen ñi jaxasoo surtout lu mel ne weeru koor weeru koor bu jotee da gis di ñu bari ci ay jigéen xeesal ba xonq takk seeni or def seeni greffage tagal seeni musóor jàkkaarloog ay góori jàmbur ñu ne lan ñii ñooy jigéeni sopp yonent bi sallallahu alayhi ñii ñooy jigéen ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo bëgg yonent bi bëgg yonent bi chaque koor rek lañ koy wane bëgg yonent bi mooy chaque weeru ko ñu organiser ay conférence laa laa loolu du bëgg yonent bi ndax bépp jigéen boo xam ne taxaw nga ne dangaa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku nekk xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ak njabootam daaw ñu def yaramu neen daaw ñu def bopp neen daawuñu wuññi seeni yaram ci góori jàmbur bal ab aaya dafa wàcc wàcc ci biir kër yonent bi salaay salaam di digle jigéen soxnaam yi ak ay doomam waaye ak bépp jigéenu jullit dañu muur seeni yaram kon képp ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi nga sopp ko mu nekk ci sa biir xol yow nga nekk jigéen jéemal a jël kol nga muur saw yaram képp ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi mu nekk sa xol jéemal a xool fa tegoon tànkam nga jéem ko faa teg sa tànk yow képp ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi jéemal xeex lépp luy bidaa ci kaw suuf waaye bu ko saxal bu ko dëgëral tey nag boo waxee ñu ne la yonent bi yéegul woon avion te yéen a ngi yéeg avion boo waxee ñu ne la yonent bi daawul lekkee ku du sallallahu daawul dugg oto te bu ñuy wax bidaa mooy bidaa ci diine nekkul bidaa ay ay siège ki ay oto ki ay avion déedéet bu ñuy wax bidaa mooy ci ci diine lu ñuy jaamoo yàlla tey nag lu bari lu ñu sos ci diine yàlla ji di ko jaamoo yàlla dëppoowul ak njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey lii mooy bidaa mooy jël mbir moo xamante ne bi dañ koy jaamoo yàlla yoonal ko ci diine yàlla ji tey yonent bi defu ko woon ñi koy def lay wàccul ci ñoom yonent bi diglewu ko woon defu ko diglew diglewu ko waxul ba fi bindul ba fi tey lii mooy li nga xamante ne bii moom la aw nit tey teg tuddé ko ak jaamu yalla ba nit ñu bare bare bare bare defe na lool ak jaamu yalla té fekk sori na lool sax ak jaamu yalla motax tax sallallahu alayhi wasallam bi wax naan kullu ummatin yadkhulul jannata illa man aba ñu ne ko qala man yaba ya rasulullah man ataani al janna wa man asani faqad aba mu ne kuma top kuma top di nga dugg aljana waye kima baña top moy ki baña dugg ki ko topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki ko topp kooku mooy ki bëgg a dugg àjjana parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoonam sunnaam bi tariqul janna la sunnatullahi fil ard sunnatu rasul tariqul janna mooy yoonu àjjana la moo tax yonent bi ne képp ku ma topp sama xeet ñëpp dinañ dugg àjjana ba mu des ñi bañ ñan ñoo bañ mooy ñi ñii mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamante ne bii dañoo bëgg saxal bidaa ci kaw suuf ñi nga xam ne dañoo bëgg dagar dëgëral bidaa ci kaw suuf ñi nga xamante ne bii dañoo fas yéene jël bidaa daal di koy teg ci kaw sunna ngir daal di màbb sunna daal di suul sunna ñii mooy ñi bañ a topp yont bi sallallahu alayhi wa moo tax yent bi ne ñëpp sama xeet dinañ dugg àjjana ba mu des ñi bañ ñu ne ko ñu ne ko ñan ñooy ñi bañ ñi bañ mooy ñi nga xam ne dañoo bañ a topp li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam te bañ topp yonent bi bokk na ci bañ a topp li nga xam ne mooy sunnaam bal bañ a topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam doyatul sëkk waaye yaa ngay ay mbir di màbb li nga xamante ne bii moom mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax a baax nga gis ne jataay yi am ak programme yi am lépp ñu di ko tuddee euh, bëccëgu yonent bi wala ngoonu yonent bi wala tàkkusaanu yonent bi lépp yonent bi sallallahu alayhi nekkuloon lu mu digle nekkuloon lu mu def nekkuloon lu mu santaane tey bu ñuy xool saxaaba yi ñoo gënoon xër ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fuuf ñoom ñi fekkee woon dundam ba mu jeex ñoom ñi àndoon ak moom ci ay xare ñoom ñi àndoon ak ñoom ci ay tartar ak i metti metti ak i xat-xat ak i euh, euh, xeex tey ba islam taxaw gannaaw ba yonent bi génnee àdduna amul kenn ci saxaaba yi kuñ mës gis mu tàmtal yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddee ko tàkkusaanu yonent bi amul kenn ci saxaaba yi kuñ mës a gis mu tànt tuddee ko guddi yonent bi amul kenn ci saxaaba yi ku ñu gis mu tànt tuddee ko euh, euh, tisig baaru yonent bi anul amul kenn ci saxaaba yi kuñ mës a mu tànt ay góor ak jigéen di fa jaxasoo ñu ne ñii ñooy jigéen ñi nga xam ne ñooy soppa yonent bi sallallahu alayhi loolu musta am ci saxaabatul kiraam te yaakaar naa képp kuy bëgg yonent bi saxaabatul kiraam ñoom ñoo la ci raw képp kuy topp yonent bi ñoom bàyyiwuñu woon dara ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci léppam lañ doon topp képp koo xamante ne bii jege nga yonent bi ñoom ñoo la ko goroon jege fop ñoom ñi nga xam ne dundandoo dund naa dundandoo nañ yonent bi dund nañoo ak yonent bi ay guddee ki bëccëg dund nañoo ak yonent bi ay tawe ki eh, naaj dund nañoo ak yonent bi ay tàngoor ak sedd dund nañoo ak yonent bi ci xaal ci waxtu bu ne ci heure bu ne ci jamono ju ne ci période bu ne ñu ngi ko àndoon a yonent bi sallallahu alayhi kon kon fekkoon ne tànn tàntal yonent bi rek ñoom ñoo ci gënoon yell fuuf te mosuñu koo def ndax nekkul woon lu yonant bi digle nekkul woon lu mu daan def nekkul lu mu yoonal kon jullit bi bu fekkee da ngaa bëgg jullit mat yow jullit bu góor wala jullit bu jigéen dellul ca suur suba kon nga gis ne topp sunna yonent bi salaay sallam roy ko jéem a teg sa tànk dontale nag doomu aadama moom munoo lépp munuñoo roy loolu nañu yonent bi ci lépp waaye nañu fexe ba daw lépp luy biddaa ak nañu fexe ba moytu sos ak di fent ci li yonent bi sallallahu alayhi deful woon wala lu mu waxul woon nañu moytu ñu ñuy taalalal ay mbir yoo xamante ne delluwuñ ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xool képp koo xamante ne bii bëgg nañ laa def loo loo xamante ne bii gisoo na li yonent bi mos na koo def demal nga laaji borom xam-xam yi fas alu ahla zikr in kuntum la taalamuun borom xam-xam yi ñi ngi fi képp ku ñu bëgg a def loolu deful dellul ca ñoom nga laaj leen ndax lii ah lan la ci yonent bi defoon wala lu ci waxoon bu dee lu defoon la nga mën ko nga def ko fa lillahi alhamdu wa sukkur bu dee li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wanoon ginnaaw la def ko waxu ko musu koo jëf nga won ginnaaw loola lii moom mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jigéen ñi nga xam ne tamit nee nañ dañoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu jéem a muur seeni cër di leen wax ne bëgg yonent bi nekkul ci ay jaayu ñu koy way rek ngeen di fottu su di jaayu du joxe seenu xaalis loolu du bëgg yonent bi bëgg yonent bi kay mooy topp sunnaam topp santaaneem daal di bàyyi ay tereem moytu ay tereem topp sunnaam mooy lépp loo xamante ne bi euh, euh, dawoon na ko ci loo xamante ne bi ñaaw téef la topp suunam mooy sax ci lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na ca loola te ku nekk xam nga ne aayab hijab ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam la wàcc kon bëgg yonent bi nekkul ci weeru koor jot rek dajaloo def seeni xàppati def seeni otes tagalu ah tàkku saanu diw tàkku saanu yonent bi tàkku saanu yonent bi rek puudaru ba makkiyaw ba saf sàpp toog ne ñoom ñoo sopp yonent bi yonent bi kenn du ko soppee noonu sopp yonent bi moom mooy taxaw ci ay santaaneem daal di moytu li nga xamante ne bii moom mooy ay tereem kon di fàttali bu ndaw la rek buñ defoon di ko tàmbalee ci suñu bopp nag ak ci yéen ñëpp lu ci jub lu ci rafet ci euh, borom subhanahu wa lu ci dëng nag ñu xam ne ñun ñi di doomu aadama ñun ñoo matul subhanaka allahuma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh